salaamaaleykum yi nga xam ne na safoo seen chaîne bi di Saint Louis TV ñu ngi leen di dalaat jàmm ci entretien bi nar am ak euh, sunu sunu yaay sunu bàjjan sunu sunu sunu sunu lépp muy soxna Ndeye Fatou Niang ibnu Baye lay Niang di jànkatu xasida ñu nar am moom tey ay waxtaan yu am solo jëmale ko ci li nga xam ne ci lay yëngu waaye balaa ñuy sore ci waxtaan bi dañ koy bàyyi mu daal di présenté ñi nga xam ne ñoo koy seetaan muy ñi nga xam ne ñoo di mbokk internet yu Saint Louis TV euh, bàjjan maa ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar a wér euh, allahumma salli ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa sant yàlla bu baax di jul ci yonent bi sallallahu alayhi wa di sant Serigne Touba di jaajëfal maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridine di sant sama waaja Serigne fallu mbake waaye di sant sama ñaari waajur ah, di sant sama waajur jigéen ak sama waajur Baye Abdoulaye ñu géwalu Xaadim Rasul waaye di sant ñëpp rek di ziar ñëpp waaw di wax tafadal bismillah macha allah présentation bi am na solo donc xam nga ñun parfois dañuy faral di gis boo invité nit ñi ñu lay laat kii Ndeye Fatou laaj loolu ndax tey euh, bu nu nee Ndeye Fatou Niang rek ñu bëre seen xel dem ci jàngum xasida te bu nee jàngum xasida muy li nga xam ni euh, na nga ñëw fekk fi suñu waajur suñu waajur suñu maam di ko def tey euh, li may laajte mooy nga nekk tey géwal nekk jigéen mu xaw a doon li nga xam ne amaana mën na yomb wala mën na metti pour nga tàbbi ci laata nga ciy tàbbi nan la demee ba nga mën ci dugg waaw ah laaj bi de am na solo lool waaye loolu yow waroo sax ma waroo ma ko laaj ndax xam ko waaye nag comme ñu wax ko ngir ñi ni seetaan yàlla dafa dogal ñuy géwal dëkk Saalum gi ca waykat ya ñuy waa waa Ngoyaan sama maam di waykat samay maam sax laay wax ñu dëkk Saalum gi Njaaw Bambali Saalum jang sax sama sama mën naa ni sama baay la ndax moom sama papa ay doom nijaay ak doom bàjjan lan kon ñun ay géwal lan war na war a way waaye nag am chance chance bi nu am mooy yàlla féetale nu ñu génne ci Baye Abdoulaye Niang géwalu xaadim rasul yàlla defal ko tawféex ñu koy bu nee Baye Abdoulaye Niang ni géwalu xaadim rasul te géwalu xaadim rasul yaakaar naa ne xasaayid rek la war a jàng waaw noonu la demee biñ ci dugg nag en tant que géwal ah, maanaam njàng mi mën nañ ni sax ñun war na noo mën a way waaye nag dafa fekk ni li ma la wax léegi rek fee la féetee maanaam li fee la nu yàlla cërale metti na mettiwul ndax jigéen tàmbali surtout njàng mi dana xaw a am ay bagage tuuti waaye nag ñun lu ñu def rek ci ndigal lañ koy def sunu baay ba moonu jàngal xasaay bi moonu ko jàngaloo te loolu doy nañu sëkk. est-ce que est-ce que mosoo bëgg nekk ci leneen euh, laata mu lay mu lay mu lay mu lay mu lay formé ci ci lii nii. waaw moom laa la wax léegi nee naa la moom xëy na lii ma nekk sax sauvetage la ci man maanaam daan naa way sax simb mbaa may taasu yëfu xale waaw daan naa ko def waaye moom bi mu xamee ni rek maa ngi jëm ci côté boobu. dafa maa daal di indi euh, daal ñu def benn daayira boo xamante ni formé ko muy daayira sunu kër ñu def ko chaque mercredi mu di nu bindal xasaay di diñu ko jàngal ñu yëkkati yàlla dogal man may may dëbbe man waaw loolu noonu la dikkee waaye moom géwal daal ku ne xam na ni moom boo koy bàyyi rek muy dem ci wàllam lool moom wax nga ko léegi-léegi maanaam muy jigéen euh, day xaw a doy waar xaw a metti nga war a dugg ci nu mel euh, muy bëre parfois ay circonstances noo koy dundee sant yàlla bu baax a baax a baax a baax tey wee ci ndigal rek waaw ñun daal sunu baay ba kenn def nu ko ëppalul ginaaw moom moo nu ko jàngal ba pare jàngaloon dañuy jàng rek. ndigal la rek ah ndigal la ndigal ndigal caabi bu ëppee du ubbi bu manqué du ubbi ñun daal. gis nañu aussi tamit euh, léegi façon jàng bi bi gars yi di jàng bu nu bu nu waxee njàng bi bu njëkk boo xoolee archive yi euh, sunu membre Ablaye ñëw nu mu daan jàngee ah maanaam euh, xasida gi gëdd gi jox. léegi ñu gis jàng bi léegi ak surtout ndaw ñi nga xam ne dañu ñëw bëri léegi ay mbir yoo xam ne xëy na war nañ ko mën a changer yéen ngeen nekk tey ay yaay nekk ay bàjjan ñenn ñi sax ngeen nekk ay maam ci ñoom est-ce que jotul tey yéen ñi nga xam yéen a jiitee loolu noonu nekk ci kaw ñu jéem a xool na la leen sensibiliser ba nu war a mën a euh, indiwaat njàng bi fi mu nekkoon comme ni ñu koy defee ndax sa mbir jàng lañuy dégg chaque instant xas de rek ngay ngay yëkkati saa su nekk est-ce que jotul tey yooyu ñu indiwaat ko bu baax a baax njàngu mag ñi waaw njàngu mag ñi waaw njàngu mag ñi moom ku ne xam na ni euh, loolu Serigne Touba ñi nga xamante ni fekke woon nañu Serigne Touba njàng mi noonu lañ ko daan jànge ñi fekke itam waa kër Serigne Touba yi ñooñu sama waajur ci la bokk ñun daal euh, jamono moo xaw a doy waar tey jii mën nga wax loo xamante ni mën nga cee dugg ci benn gàmm boo xamante ni mën nañ ko gisee neneen waaye ñun daal li gën a wóor mooy sunu baay ba li mu jàngal ñoo ngi ci du tee tamit innovation am na ci beneen côté mais xasaay di moom nan ko jàng ni ko Serigne Touba bindi rek moo am solo maanaam ñun sama papa dafa daan wax ne ñu xasaay di bu ngeen koy jàng bu leen ko yokk bu leen ko wàññi sadda nag bu leen ko ci bàyyi sadda rek bu leen ko ci bàyyi waaw mi ngi noonu léegi bu bu fekkee ni nag ñun ñoo ngi ci di jàng man man bi may commencé jàng nekkuma di jàng sama eeru papa dama daan jàng di roy ñoom sëñ Ablaye set di roy ñoom euh, sëñ Xaadim Gueye wala may roy di di di wax yeneen yeneen yeneen di rajas ak ta paa bi daaw ci wax dara déedéet déedéet moom moom sax dafa ma daan wax heure bi heure góor la moom loolu la ma daan wax dafa ma daan wax ni ma heure bi heure góor la waaye yàlla dogal toujours fu ma fu ma ko laajee nag dinaa ci sawar ndax toujours benn bis laa ma sa gis soxna na koy géy mu Chérif Tilala moom laa njëkk dégg mu jàng sama heure papa ak benn benn ñaari rakka sama ñoom papa sama papa ñëw fii ci ñaari rakka yi gis ay jigéen yu jógee Thiès di jàng jës bu ñu di jàng jës bu mu enregistré que ñëw tegal ma ko may dégg naa ko papa ñi ay jigéen lan mun ma waaw léegi nag bi ma gisee soxna Nogay Guèye moom man damaa dem ni sama papa papa ñaanal man damay jàng air bi ndax jigéen lanu may jigéen kon man war naa mën a jàng bi mu reetaan ndeysaan mais jour boobu dimanche la du ma ko fàtte mukk daayira tasawudu sixar laa dem ci laa ko njëkk a muy lakkal Fallou yaa Muxtaar mu doonoon lu diis mu doonoon lu diis lool ba ma ko yëkkatee ñu bari waaw amoon na ay kii mais nag ñun xam nga gis nga day am loo xamante ni du doon sa njàmbaar sa ndimbal lay doon waaw du doon njàmbar ndimbal la te ñun xam na ni fi mu ne nii loo bañ sa doom def ko bu ko def loo bañ looy bañ sa doom di ko def fexeel ba bul ca jaar ndax dret dafa fort te ku ne xam na ni doom bu jigéen mooy gën a kii baay waaw baayam waaw. wax nga ko léegi deret dafa foor kii mi ngi may laaj naan ma carrément que kii seetaan nii gën a xam tey loo indi ci deret ci loo xam boo ko ci téye rek xëy dem si sunu maam bu tedd boobu noonu tey loo koy may. يا رب نجنا من الشيطان وجورة الجيران وسلطان ربنا نجنا من الشيطان najna mina saytaane wa jawratal jiraani wa sultaani wa kullu naafisin alal uqoodi wa saalimin wa aabidin usoodi wa taariqin zi turiqin tadlilin wa kulli tilmisin wa sil balili fa biduwaay yasrifu lbalaaya wa birrajaay yujibu lataaya ya rabbi najina min asaytaane wa jawratal jiraani wa sultaana cikan ku mel ne rasulullahi sultaan sëñ Fallu yaa jara way soppey Serigne Fallou baayu meen ya jara jaaya mu yaay borom wilaaya man da doylu ma <laughs> mu ngeen kon ne noonu rek <laughs> yal na yàlla wéral baat bi li dafa neex man moom su may présenté genre émission yi mel nii damay faral di bëgg koo xam ne toog si wet bi rek pour su ma kiiwee rek mu ñëw toog ndax ma damay damay damay dem <laughs> donc lii bu ñu ko déggee rek sunu sunu xel day dem sunu Baye Ablaye Niang sa digganteeg sunu maam Baye Ablaye Niang ah suma sama digganteeg sunu waajur woowu waaw cofeel rek cofeel rek sunu diggante ak moom moom la ñu xam moom la ñu miin ñun du woon sunu baay sax sunu maam la waaw ndax bu ne baay rek danañ ko bokk ak ñeneen bu ne maam bokk ak ñeneen waaye ñun maam lañ ko defoon ñun doomam yu jigéen ñi ñu je ñu maanaam moom mu mu amoon ci ñun cofeel lool nag barki sëriñ Fallou ndax cofeel mënul weesu li ngay yëngu. nga nga fexe ba say doom di ci yëngu waxuma man waaye macha allah doomam yu góor yi macha allah tubaarkàlla ci ziar bu baax sunu mag sunu xalifa muy Serigne Mamadou Niang a xam ni moom macha allah tubaarkàlla waaye ñun ñi nga xamante ne ñooy jigéen ñi dañuy toog di waxtaan ak moom yenn saa yi ñu jugee fa leen papa waaw am nañ air bi nangam nangam nangam wax maa génnee sama maam jaara bi di ànd xëy ni ñëw teg ni ko papa kay dama tegal benn clip daal kii bi tegal ko nii. suma maam jaara bi noo woon. buso baali poroxaan maam jaara wàcc nga baali poroxaan maam jaara wàcc lay la buso baali poroxaan mam jaara wàcc nga noonu laa ko daaje ma ñëw teg ko muy seetaan daal ni daal ni nii xaw moom ndeysaan <laughs> ñun danoo meloon ne bu ñu ñëwee dañuy waxtaan muy ree danoo meloon ne ay sëtam ci moom ma tegal ko mu ni ku la waxal lii ku la ku la bindal lii ma ne ko papa maa xalaat rek wax mu ah tubaarkàlla neex na de neex na ndeysaan lu mu mas a def rek neex na ko waaw yàlla nañu ko yàlla fayal na yàlla yokk ay leeram taas nu ci barkeem waaw barke bi mu ngi fi yàlla na nu ci yàlla jotale ci barke Cheikhul Khadim. am na loo xam boo koy xalaat ci moom muy yi nga xam ne daan yëkkati jëmale ko ci yow wala jëmale ko ci njaboot gi yëpp ba boo toogee parfois nekk ci ay yenn moment boo xalaatee gën a amu fitu gën a dem ci fi ngay fi nga fi nga fi nga bëgg egg nan lay doon lan la doon loo xam ne lu la marqué la. xanaa mu daan wax ñetti ñetti ñetti kàddu daan wax am na loo xamante ni bu ngeen ko bu ngeen ko dégloo rek di ngeen tardé mooy bu ko topp gënu la bu ko jox dalay nax fayul dalaayam mm. bu ko topp gënu la bu ko jox dalay nax fayul dalaayam daf nu ko daan digtal mu ni loolu na ngeen ciy bàyyi xel bu baax ku tardé rek ci àdduna looloo la tardeel ndax ku toppewul kenn du la topp te ku toppewul doo for dara ndax ki ngay topp lu mu waddal nga for mm-hmm. waaw bu fayul dalaa yam nag yokku xeex la maanaam nit day jég jéggale te jëlale waaw ah, bu ko jox lay nax nag mooy euh, loxo bu ñooxul du ñoqi mm-hmm. yooyu noonu mu daan wax ndeysaan daan nu jàngal ay olofal yoo xamante ni boo demee sax sa biir daal di toogaat daan nu waxtaan ak ñun di wax xëy na yu ci bari sax ñun bi ñu seeyee la amatul jot toog moom waaye bi nekkee ay tuut tànk nekk ay jeune fille nekk ci wetam da daf nu daan waxtaanal yu baree bare bari bari dinu yee ci àddina waaw dinu yee ci daan nu wax tamit itam dinu wax ñun xasaayid yi euh, maanaam ku ko soxla na ngeen ko ko defal yama dangeen ci yemale ko am dërëm ak da ngeen da ngeen def ba ko am dërëm te soxla ko ngeen defal ko ko ku am milliard te soxlawu ko ko bu leen ko ko defal daan na wax ni defal ko katolik bi sax mu déglu ko moom moo gën mu soxla ko moo ma gënal defal ko ko soxlawul te ñun de ñoo ngi sant yàlla bu baax duñ dem mukk fu nu wowul ndax loolu moon ci tete moon ci moonu ci nàmptal dañ koy sant rek bu baax a baax. mu am lu mu liggéey nag ci ci àdduna rawatina fi ñu nekk muy Sénégal tey euh, succès boobu da koy bàyyeel mu doon li nga xam ne parfois fu ngeen riide fu nekk rek ku leen gis cofeel gi am ci ngi seen bàyyi tey loolu tamit da ngeen koy dundee. xanaa di ci sant yàlla bu baax a baax a baax a baax. ndax man mi doguma la man mi man mi di waxee ma ciy teral. maa ngi la koy wax ba nga ñëwee kër ga ba dem man la damay dafa am ñu ma a jox parfois Dakar addiye naa ma sa addiye maam ma ñëw wax ko un jour mi ma bu la ko joxee te lekkal te res ak jàmm donc loolu liggéeyal daf daf ñu ko liggéeyal ñëpp waaw. waaw loolu mooy ñaan gu nangu loolu mooy liggéey bu bu nangu liggéey bi Serigne Touba da ko nangul ndax bi muy tàmbali metti na ndax boobu ndar gi jàng fi xasaay metti na lool mu jàpp rek taw bàyyi pas rek mooy maye loolu tey looy liggéey lu nekk fexeel ba boo fi jógee euh, mu bañ bañ a te Baye Ablaye Niang kenn mënatu koo fay ci àddina maanaam foo dégg jës bu jës bu lu xulóob bu mu daaje eeram même bu ko keneen jàngee dana ni kooku de eeru Baye Ablaye Niang lay jàng ñun loolu tawféex la ci ñun suñu gisee kuy roy suñu baay boobu sax dañuy kontaan ci yow dañ lay bëgg barki Cheikhul Khadim ndax moom daan na wax bala maa sonn yàlla naa am ñu ma aw te nee na ñi pour ba mu koy ñaan xamoon na ni moom lii muy jàng ay doomam danañ ci ne waaye bala may sonn yàlla naa am ma aw booba kon Ablaye Niang yi dana bari lool day bari lool maanaam na xëy moom fa mu ko daan teg dana jafe ku ko fa teg. ban ban daan jàng boo xam ne tey say euh, mun mun nga ko mun nga ko wéy rek ñëpp ñëpp ñëpp bi moom air bi moom ku ko déglu rek xelam dem ci moom. xanaa jës bul xulóob waaw. salli ala muhammado seydina muhammad صل على محمد سيدنا محمد صل على محمد سيدنا fanu jam seydina muhammado cheikh bamba salli ala muhammado seydina muhammado alay sama cangay alaaji cheikh mbakke lanu yaakaar fi ba fanu jam seydina muhammado cheikh bamba salli ala muhammado fanu jam seydina muhammada seydina muhammada fi ba bayti laay sëriñ Mbàkke soxna looy sunu yaakaar tey jeeg fanu jam seydina muhammada salli ala muhammada سدن يا ربي يا سدن جلال الكرم يا المكة يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمنتهى مترمى نجول مكة للمصطفى الذي ترى له الصلاة والسلام ما امتداي كلها محرمة من المكرمة نجول مكة سلي على من جاء الخطبة الوجودين هالو والي سوينا له وسبي وكرمه يوم مكة صلي الله من جو إلى خير النبي فدلا يا إلى أبونا جدلها دام فتني وعزمه sëriñ Bamba wa salliman ya rabbi ya ala khitaam anbiya wal mursalin ala siyam imamin al muazzam ya makka wa sal ya sa nixmate ala rasul rahmate mixlaqi babi nixmate ya sababi kulli nasame ya makka wa salliman ya samade ala nabi muhammade wali wàllu madee yaa wakkulu si tara sume sin bamba yaasal bakaawal xiddame mini taqabal xiddame watu bisa taqaddume aya be amunero laqame njol makke zaka khiyaaru arabe mustafa zaka munero arabe njol makke zaka sabilu talabe ya tabibolu zaqabe mustafa zaka khiyaaru arabe mustafa zaka munero arabe njol makke zaka sabilu talabe ci nabi salli ala babil uday dam nail madam molin nada laysili da mai radaya babil wala wal karama rabbi wasalliman ala mooy bàyyi Fatima zakal makinu wal matino zakal mujiru wal xamino bisa sana wa tarame ci nabi zaka wayidu wal majid wa huwa al mabarru wal ahid man bi istiqamatin yaqodo ila al jinani man ame yal makka salli wa sallim ya qadir ala sirajika al munira wa huwa al basiru wan nazira bi niqamin wa ni'ama zaka rasulu ra'ate وسكر براءته وسكر سلف ساعته سكر رسول من أمين جي نبي صلي وسلم سرمدا يا من كفاني كمدا على البيد الأحمد وليكن بني أمين نول مكالي جميل النزائر وباتني بتائر يا ما ينكبائر هايدا بجاي ولا ممين نول مكالي يا ملدي أميلي أني على المزمل صلي بكلكم عليها مع جميل تنبي وسلم يا بدي على المتاع والمتاع شكا مشفى وشبايا حبيبي كالمفخم جنبي سليلا مبجلي يا من أمان خجلي وإنك هو جلي وإنه وفقم جنبي سرين توبا أمول مروم كو أم مروم ويسا بروم يلا كو دف مدي بروم مدي بقل باجنا شيخ بامبا كفاتو يا فنجكتي بني جلي قدي فتاو نيرم غاندك نيوم am ñu dem nga de sontu layaw um, jërëjëf Serigne Touba len lenn lenn xam naa ko ci moom lii moom bi yeboo ñu préparé benn direct boo xam ne moom dañuy jël suñu temps deux heures temps rek di ko di ko di di ko di di sama xol seet de te it ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi filmé seen xol seet na waaye ñu nekk fii yëpp seen xol seet na waaw doon doon doonte nag euh, temps bee temps bee ñuy waaj a waaye sañ ñu tàggoo te duñu ñëw ci li nga xam moo moo moo mooy mooy mooy li ngay li ngay xewal muy bis bu am solo boo xam ne yaa ngi ci yaa ngi ci yaa ngi ci yaa ngi ciy dox boobu ba euh, muy la lan muy lendemain tabaski suma jumu incha allah donc sur la lendemain bi incha allah donc ma bëggoon nag nga indi ci ay leeral euh, lu waral bis boobu nga bëgg dippe Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam di ci dox jéego am solo ngir mën ko amal. waaw alhamdulilahi rabil alamin euh, damay santaat yàlla bu baax a baax a baax bis bi tey ñaan sunu borom ñu fekke ko tatal ko. ndax bii mooy quatrième édition yaakaar naa ma ko daan defee quai des arts ñu tàkku saanu Seydina Mouhamed di ci sant Serigne Touba di ci jaajëfal maam Cheikh Ibrahima Fall waaye di ci sargal sama waaja Serigne Fallou Mbakke borom ndindi bàyyi Cheikh Abdou Karim Mbakke borom Makarimal Akhlaq maam yi seex Mourtada ak Jili ah, di ci sant yàlla bu baax a baax a baax ndax bis bi dama ko daan def ci sama kanamu waajur ren yàlla dogal yàlla def li ko neex. ñu doon ñaan yàlla mu di ko fekke ay ati at waaye lii moo neex suñu borom yàlla dogal ñu ren Covid bi tax daaw defuñu ko ren ñu fas yéene ko tey ñaan yàlla dimbali nu rek ñu yeggale ak suñu sago te ñu daje caag ngërëmal Serigne Touba ndax moom rek lañ ci sàkku bis bi nag ñu am ñun ko jagleel maanaam ñoo xamante ne dañ leen ci rendre hommage nga xam ni dañ daan nekkandoog ñun di jëfandoog ñun di waxandoog ñun tey yàlla dogal li ko soob ma ci jëkke sëriñ Mor Diop alxuraanul karim waaye di teg sama waajur wa si Baye Abdoulaye ñu ngi géwalu xaadim rasul ak Cheikh al Khalifa Aydara Chérif ak góor gi Yatma Ndiaye di mu xaddam taalibe Cheikh euh, Tidiane Chérif di bàyyi ci soxna Fabinte Ndiaye tàggatu yonent bi sallallahu alayhi waaye ak alhaaji Golbert Diagne nga xamante ne ndar tey mën nan ni bu melee nii moom ci moom ci ay kàllaamaam ci la bokk ak tamit mu tàmbali woon loo xamante ni ba léegi moo tax tàmbali lu baax baax ndax loolu mu daan def ci armeel yi ba léegi tey bu fekkoon ne leneen la daan def leneen loolu rek lañ koy defal waaye yàlla dimbali na ko sauvé ko yàlla na nu sauvé ñun ñëpp ndax ku ku dem dañ laa dimbali te yàlla ku mu ni da nga dem rek danga dem ñu leen ci rendre hommage di leen ñaanal sunu borom bi foofu mu foofu ñu nekk ñoom gënal leen foofu fii ñu jóge woon te nañ ci yaakaar bu baax a baax ma tudde ko sama ay nit yu baax waaye nag bis bi ñetti parti lay doon maanaam bu nu dugg see ak li nu xamee muy Baye Abdoulaye Niang nga xamante ni leeram bi nga xamante ni air bi nga xam moom la ñuy yëngu ba sépp xam na moom la ñuy njëkkee daat koy eh, tudde yàlla sunu borom bi sante ko ko ndax fekkee gi mu fekkeloo bis bi tey ñaan mu fekkeloo nu ko ay ati ati ati ati ati yàlla nañ ca yegg ba di ko nettali yàlla bu kenn wopp yàlla bu kenn faatu yàlla na ñëpp fekk bi bi jaay Seydou Diop sallallahu alayhi wa sallam te yàlla may nu def ko ak su sunu sago ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Xaadim Rasul bu nu ci jógee dañuy rendre hommage ñoom ñëpp am na yoo xamante ni moom lañ leen di préparé ay air yu ñu leen fas yéene defal ñii ñu defal leen ay taalif ci bis boobu nanu ca xaar incha allah te ragal ragal na ne dina am solo bu ko defee nag daj dëpp gi tubaarkàlla ah, ah, boo ko njëkkee mën na ni bis ba foofu lay yam ndax loolu la yàlla dogal waaw sëru maam bu njaay daa bay maam Seynabou Ndiaye daan jibee nga ci ngaay góor dëgg bàyyi laal Fall maam yi Serigne Cheikh Jëmb borom digal Fall moom ñun ay yaay Fall lañu xëy na dañuy jàng xasaayit ndax moom la ñu bàyyi bàyyee te moom la ñu nàmpatal waaye sikar laa njëkk a ubbee sama gémmiñ gi ay yaay Fall lañu sunu bopp yi boo ko boo ko ubbi woon tey ay njëriñ nga ci fekk ak mboolem ku may àndal nag loolu ñu ci sant yàlla bu baax ndax sunu waajur wa bég ci lool waaw waaw moom daal bis bi noonu daal lay demee bu nu xëyee suba gi nag dinañ wàcce kaamil ay sarax maanaam lépp lu nu war a wax ca foofu lañ koy waxe bis ba moom ñoo ngi ñaan ci yàlla am njàng rek lan fay lan fay lan fa bëgg incha allah ak mbooleem njàngkat yi nga xamante ne ñoom laa invité te nu war a ñëw ku bëgg a dégg neex rek na nga ñëw foofu waaw bu nu tabaskee ba ca ginaaw suba sax te yàlla may nu fekke ko ak bakkan te tal ko nanu daje place Ablaye Wade incha allah ñu euh, mise en place bi 16 euh, heures lay doon waaye ragal nan ni euh, moom daal yëfi murid la bu nu xasee tàmbali moom moom fu nu fu fu mu yem rek baax na waaw yëfi murid la daal yëfi Baay Faal la. kon bis baa ngoog ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy yëgal ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëw teew si incha allah. donc looloo looloo waraloon ñi ñi ñi amal waxtaan bi mais mun ñu woon ñu dugg ci ndaxte message je pense que wax nga lépp mais li ci am solo da ciy baax bu nu amee occasion yi mel nii ñu ci euh, waxtaan tamit lu bëre ndax am na ñoo xam ne lay bëgg xam bëgg la découvrir bëgg am ci yow yenn yoo xam ne la kay laaj mais mun ñu xëy na egg ci yow wala mun ñu la gis ñu ñi nga xam ne suñu borom suñu jagleen ñi nekk ci milieu bi nag suñu rôle mooy ñu leen koy yombalal donc temps bi temps bi temps bi xoj nañu gars yi ni waaye euh, balaa may balaa may bàyyi ngeen tàggoo rek dafa am message bu ndaw bu mu bëgg nga lancer ko ñi nga xam ne ñooy jànkat yi wax naa la ko sànq nga wax si mais dama bëgg nga ñëwaat si muy ñi nga xam ne dañ nekk ay ndaw tey bu ma nee ay ndaw sama doomu ndey si la bokk Fallou donc ñu nekk ay ndaw yoo xam ne tey ñoom waroon na mën a xoolaat jàng bi nu ñu koy nu koy nu ñu koy doxalaatee la ñu koy teg tey bu amoon kàddu yoo leen yoo leen yoo leen yokk lan lay doon waaw ñu gën koo sellal rek ta xam li ñu yor xasaayit lépp ngi ci xas day sëriñ Bàmba yi boo ko téyee te sellal ko foo bëgg a yegg danga fa yegg loo bëgg a am ci àddina ci teraanga danga ko am nan ko téye rek te sellal ko donte mënunoo dab mag ña waaye ñu aw ci seeni tànk rek waaw ñu aw seeni tànk rek bu nu téyee xasaay di daal di jàng nanu xam ni sëñ Tuubaa moom ba mu koy bind ci ay xat-xat la ko doon bindee nanu xam loolu loolu nag pas-pas ak selal mu koy eggale bu ñu demee ci maam Cheikh mu Fall nag waaw ba kii tubaarkàlla ñu ñu ñu ñu sant Serigne ñu sant Serigne Touba baax waaw ay xasaayiti Serigne Touba yi nan ko sellal nan ko gën a sellal waaw nan ko gën a sellal xale yi tubaarkàlla am nañu voix bi mokkal nañu nan góorgóorlu rek gën ko teg at kii waat ko tuuti rek waaw man dama leen di déglu bu baax ndax man lu neex rek la sama nopp yi di déglu te ci xasaay bi rek laa koy dégloo kon maa ngi leen di bi yàlla bu mujj mujjee pusa mu réer waaw maa ngi leen koy ñaanal baax ndax di jàng ba mujj gi sa ay doom ak say rek loolu fierté la waaye boo sañoon ñu teg ko fi nga ko tegoon am na ci solo waaw ñun de bu nu mbaa ñu di nu xool mbaa ñu ñu bëgg eeru Baye Ablaye Niang bi tax waaw barke Serigne Touba may sikar nag ci xiin yi bu baax a baax ndax yaay fàllaa waaye ku may bëgg mbaa nga may nga may seetaan di ma def ci sa biir xol bii Baye Abdoulaye Niang a tax waaw eer bii may jàng moo tax te nag air bi duñ ko bay mukk ilaa yawmi di ndax air bi mooy sunu fierté ñun waaye nag ay yaay fàllan dañuy yëngu bu baax ci sikar si ak xëy waaw bu baax a baax bu ndéggee wax ji day day day li koy tëj mooy li Sëriñ Tuubaa di wax rek wasalaamun ala mani tabbaan huda donc ñoo ngi gërëm suñu yaay suñu bàjjen moom tamit tur bi naka la sax soxna Nday Sañ nag ñu ngi koy siyaaru baax a baax moom kay moom kay macha allah mi ngi njolli lu am solo kañ moom ak sama sama doomu ndey Cheikh Fall moom tàdd rek <laughs> di gërëm aussi Amadou Diop Badar bi nga xam ni moom ndeysaan ba ba léegi mi ngi ci affaire bi di gërëm aussi euh, Mandiaye bi nga xam ne moom tamit euh, mooy directeur programme Senel TV teew ak ki nga xam mooy euh, Ousseynou Diop Nobis moom tamit directeur technique bi donc gërëm na leen bu baax a baax damay bàyyi rek jox leen micro rek bàyyi ngeen tàggoo bu ko joxee bu ko defee ñoo ngi amaan mbégte jox ñi nga xam ñu ni seetaan dikk ak daje ci yeneen numéro incha allah jaa ngeen jëfati bisimilah. lay lay la la o oh, lay lay la Cheikh Modou Bamba ma way la Bamba eh, lay lay la la oh, oh lay lay la la Cheikh Modou Bamba ma way la Bamba ah lay lay la la oh lay lay la ma way Bamba lay lay la la oh lay lay la balu na ta eh, eh, ma way Bamba ah su su le khot mai فلتك في جورا لمن يرى لا إله إلا الله لا إله إلا الله سكولنا تا ما ويلا بامبا نسيس تديرا لخوت ميرا فلتك في جورا لمن يرى لا إله إلا الله لا إله إلا الله سكولنا تا ما ويلا بامبا mam Cheikh Fall jaarama mam mam Cheikh Fall jaarama Cheikh Fall jaarama jaarama